Clin d'œil 24. Regardez votre chaîne 24 heures sur 24 et retrouvez l'info juste et vraie. Est-ce que vous êtes prêts Oui, vous êtes prêts. Alors, abonnez-vous. jaaral fi sa maam yi jaar ah. ak sa bàjjan yi ak sa baay yi loolu laa bëgg nga def yow maam bu am jamono tuñ ah. bàjjan joo am jamono tuñ yaay joo am jamono tuñ te mosuñoo daw mosuñoo raf mosuñoo tiit man Aga Ndeye Ndiaye mii ma la di la jam di sa bàjjan di sa yaay ah. ma bëgg nag Njaay Biram Kumba Séeni njam li nga def ko fulla ak fayda ñu bu rek tàmbalee ko bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko alhamdulilahi rabbil alamin lépp loo xam ne nag ñu ngi ko ci def rek yàlla jëmm jee toog a tax rek ci madame bi ndax ma yàlla da koy indi ndukku maan lépp loo xam ne muy amee eh, eh, eh, kii nu mu nekk ci wàllu liggéey semaine culturelle nekk ci aada ak cosaan ku bëgg sa aada bëgg sa cosaan nag man de man de Ndiaye soo dikkee ci man loo ma ci wax ma defal la yow madame Diouf man yaa ma bëggal sa bopp lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def rek ci wàllu artiste rek boo waxul yaa Ndeye Ndiaye rek sa xol du sedd waaye nag amul dara loo ci réccu ndax man ñàkk ma woo sax aayuma gaaf te duma ànd ak kenn muy dellu gannaaw ca kaw ca kanam rek barke Rasulullah kon nag tey sama doom jii ma tëral ko di ko jam fii ci ndukku maan bu soobee yàlla ak yonent ba yennee ci duggee ëllëg bisimilahi rahmaani rahim génnee ci alhamdulilahi rabbil alamin léegi nag nañ commencé njam njam nag boo koy commencé na ndënd yi tëgg woy yi neex jàmbaar ji mën a ñëw jom ji dikk melentaan bu la mattee bul yëngu su la weñ mattee bul yëngu biram kumba seeni ma mbooj waa jigéen denc kon denc mbi saa loolu benn fii la sa maam yi daan jaar ak sa bàjjen ak sa bàjjen bisimilahi rahmaani rahim rahim yi génne ci alhamdulilahi rabbil alamin waa di nga def acca bisimilah rahmaani rahim yi ba tey xel di doy ñi may àndal ci njam li yaasin buub di sama rak boo liggéey di sama boro ak ndaama njóogu xale yi may tëggale gi nii sama waa kër ñun aada ak cosaan rek lañ xam moom la ñuy def ba mu neex kon nag nañ commencé njam li bisimilah rahmaani rahim yeggale alhamdulilah ko ndand yi jiin jàmbaar du daw bi bisimilah ari caali ndeyel ari yo pol ba naan wayyegga mu gude wolof ndeke njam tàgg naa xam ngeen ne Daoud ñeme na. waaw kay ñeme na. <laughs> jàmbaaro jàmbaaro jàmbaar nga su ma nara daw dee ñoo bokk jom. gaay ndokk yàlla ragal di ko dégg jàmbaara koy naa sant naa gërëm naa madame Diouf gërëm naa ñëpp dama leen di wax nag li xam ne njam moo tax mu waral njam li ko tax a jóg njam day aada di cosaan njam du lu ñuy fontoo moo xale bu xalaf nekk ca àll ba ñun moom lañ yemale woon ak njam dañ daan wax ne xale bu jigéen bu jamut doo am jëkkër soo amee jëkkër jigéen ñi du sa morom ñi duñ fa ñëw ñu ne medd nga yaa rab yi dee te te ke reyu leen yéen a yem moo taxoon ñun ñu fonk njam ku ci ne balaa nga am jëkkër dugg néegam sey da ngay jam soo demee ca ba jam aster mi lay jam ñaari nit lay jam ci jant bi bu kii xëyee tëdd fu ñu salaatu xëy bu mel noo mi tëdd mu di ko jam di ko jam di jam bañ julli ci subaar kooku jog ñu tëral keneen ki mu tëdd ñi di ko jam di ko jam di ko jam bañ julli timis kooku joor a bu la melentaan mattee doo yëngu bu la jamee doo jox lu la fa mënta dal doo da ngay da boo dawee ñu ne boo boo rafee rek ñu ne daw kon loolu aada la cosaan la fi lañ ko fekk te fi lañ koy baax xale yi nag léegi ñoo ko xew ndax seen ñi yi ñuy def lu xonq lay waaye loolu njama ko gën a rafet njama ko gën a assuré te njam <coughs> aayut man de doom ju ma élif suma sago suma sago nga jam ba ci gune góor yi sax waaye nangul <laughs> kon nag nga xam ne jam cosaan jam aada la loolu laa bëggoon a expliquer ba ëllëg ko xam njam xam fi njam soqe koo xam na du jaaxal <coughs> waaw. taar lay def ci nit wala wér yaram. taar dana def taar dana def wér yaram képp koo xam ne kii jamu nga tuñ bañ koy mujjee doo am wér di borom bopp bi gémmiñ taar lay def ci nit dana def wér yaram eh, ndax borom bopp yi di dal nit ñi lépp ñàkk jamoo leen ko soo jamoo am na deret joo xam ne bu génnee ci yow c'est fini say bëñ feeg ba ngay dee yaa moom kon jam taar la wér gi yaram la lu mat a eh, def la lu am solo ci nit la même sa signe mii sax boo koy jam sax doo am yore dig bëñ doo am yore dig bët lépp ci njam la waaw kon njam lu baax la waaw lii la njam cosaan la day maanaam da nga ci buñ ko daan def day am loo xam ne ci lay jam da koy fay wala aada la ak cosaan boo xam ne rek dañ koo warlul képp koo xam ne bëgg nga koo def amul dara lu la ci. laa ilaaha illallaah fay. da ngay da ngay may. da ngay fay say bàjjen ak say baay tiim lañ di la tëggal di la maye xaalis. di maye xaalis ba nga jóg. di maye la joo ma joxul ndàngam ñun te bañuy jamu boobu kuñ ko fay 5000 francs du te bañ may jamu man te booba 5000 francs lu tëral. koy fi ne man na téeméeri junne fi mu ne nii boo xëyee boo koy yittu cinq mille mu dàmb la nag ci néeg doo génn njam moom julli ñoo yem boo jamoon yaa ngi yem. takkal say téere dañ lay takkal say téere takkal la say eh, eh, galan di la utal ku la dàmb sëriñ bu la dàmb ne ak yow ca néeg doo génn di la garde feeg ba nga wéree ngay jàpp sa tuñ mi di ko sikku tuñ mi di daan yàbbee ko ba toll nii da nga koy sikku jeex foo toll ba ba tiñ mi jeex nga soog nga soog a bàyyi nga soog a fóot génn ñu ne tey boo tekki génn boo footee ba génn ñu ne tey dafa jamoon tey lay génn ñu ñëw reyal la béy say morom yi tase fa ñu xabaareel la defal la lu ne njam lu foor la njam lu foor la de njam dafa foor man de sama baay ñaari bay la ma reer ne ma da xam ne maa la gën a jàmbaar te lii nga def nii waaw danaa la reyal ñaari bay nga xam ne njam foo noonu lañ ko daan defee njam aada la cosaan la waaw li ñuy wax dañ delloo si xel yi seen li fi maam yi baxoon njam a ko waral dëgg la njam aada la cosaan la ñoo ko bëgg a sage nag léegi na xale jigéen yi koo wax mu ne damay roosaaw lool yëpp ragal la rek mm. duñ jam sa si jam eh, ragal du ko dékku de duñ ko jam sakkan ragal du ko dékku jàmbaara koy moom ah, liñ leen duuti ala gaay yi doog ko yàlla ragal ko dégg jàmbaara koy moom loolu mooy njam waaw ragal du ko dégg ndax jël jëgi funux dagg ko booba pusa sax xewul pusa xewul dégg fo nag la lawba bi dem uuti di ko xooj ko ci ndox mi wu nem nem dëbb ko ba mokk mu xooj ci dég yi booba seen mu xëy def koy takk di la jamee takk yooyu ba mu jeex loolu jàmbaar rek ko koy dégg waaw ay jéeg ragal du ko dégg dëgg la merci yaa teeku nag kii si ndam waaw yoro balaa nga xam ne ndam mooy cosaan sama doom ji bi mu njamoo ba jóg nag la ko nag la ko bàyyam reer waaw waaw ndeysaan fii nii ah sama sang bi jamu sama nijaay rayal ko nag ah. dama yaa ngi koy dégg lii mooy cosaan lii mooy aada ah jaar na fi nga xamante ni foofu la ay bàjjenam jaaroon dégg nga sànq bàjjenam nee na keroog bi muy jamu baayam ñaari gàtt la ko rayal tey sama sang bi jamu dama yaa ngi koy dégg sama yaay rayal kon nag ah may ñu xaalis bu bëri ñun ñëpp ñu te bés bi dama ne loolu ñu koy sant yàlla di ko gërëm tey ñaan sama sang bi dama yaa ngi koy dégg ah wax dëgg yàlla yàlla na ko affaire bi jik yal na affaire bi ji. may bàjjanam ndeysaan bàjjan di ñëw may la junne ñu may ma xaalis dama yàgg ba dégg lii lii dama ne dama ne ana géwél yi ana géwél yi ana géwél yi. foo dëkk boo foo dëkk boo faa ne.